mbokki jullit yi mbokki talibé yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi am mbégte tey ngir toog ci kanam sang bu sell bi Serigne Abdou Karim Mbacké makaarimul axlaaq moom Cheikh Mouhamad al Fadal xam ngeen ni dégg ngeen fan yii ay communiqué yu bàyyikoo ci moom jëm nag ci liggéey bi nga xamee ni magam ju sell yi Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké moom Serigne Touba Cheikh bu mbakkee moo ko jox liggéey bi nag jëm ci ruuj toolam yi nga xame ni moo nekk ca Touba Mouride ginnaaw Touba Belal Serigne bi nag képp koo xam xam ni lépp lu muy dugg dana ci jot ndigalul ay kilifaam te dina ci waxtaan ak kilifaam moo tax ginnaaw bi mu ñaanalee Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kulu murit fanu gudd lool wu ànd ak wér-gu-yaram te ndaka jekk ci loolu la musa nekk mu jóg dem ci magam ju sell ja Serigne aboo Mbakke xalifa Cheikh Mouhamad al Fadal waxtaan ak moom ci liggéey bi Serigne aboo tem yëkkati kàddu yu yéeme jëmale ko ci moom ginnaaw bi nag Serigne bi dem wërali boppam tool ya ba àgg ngir fa mu teg liggéey ba ak fa mu teg ki ko jox liggéey bi muy Serigne Cheikh Ahmadou Mbakke moom Serigne Touba Cheikh bu Mbakke bi mu demee ba ñëw nag. ci la fas yéene yëkkati kaddu yii ngir taalibe yëpp dégg ko jëm ci liggéey bi kon ñun ñëpp ñu maase teelu déggu sëriñ Abdul Karim Mbakke makaarimul axlaaq moom Cheikh Mouhamadul Fadal. waaw oh, asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax yéen taalibe ak jullit yëpp rawatina nag ñi ñi nga xam dañuy ñëw fii li ma seet si ci ndindi ndindi sëñ Fallu man di leen xamal ne. maa ngi leen di nuyu baax te di leen siyaare di leen xamal ne sëñ bi sëñ Cheikh sëñ Cheikh Amadou Mbacke ñu di ko wax sëñ sëñ Cheikh Say moo nu jox ndigal fële ci Belel Touba Belel boo demee Belel rek ñeenti kilomètre digg nekk Belel ñu war ko ruuj fa laa demoon nii léegi doon ko wëri waaye liggéey ba nag gannaaw sëñ Cheikh Say moo nu ko jox liggéey ba dafa war a gaaw te dafa war a set wicc wicc wicc wicc ba bu sëñ bi ñëwee bu ko gisee rek bég xolam sedd mu gërëm noo ngërëmam nag sunu njëriñ la moo tax lañ euh, ko def ni mu ko bëggee rek bi ñu bi ko sëñ bi yégee nag sëñ boo mu wax ne ñun ñu fay teew ñëpp yàlla nañ ci am ngërëmul sëñ ak ngërëmul Aji Fallu Mbakke ci saayir ak ci baatin ngërëm li ak tuyaaba yi yàlla na ko ci yàlla defal loolu la sëñ boo wax moom naa leen wax dama jàllale ko rek maanaam liggéeyu sëñ Cheikh Seye daal dafa nekk loo xam ne bu bu jógee dafa war a dafa war a mel ni mu ko bëggee rek moo tax dafa liggéey ba daan lañ fexe ba mu gaaw lool te rafet lool ba nga xam ne bu sëñ bi ñëwee rek bu xolam sedd ci guy bu gëlewee mu mu gërëm nu bu nu gërëmee rek suñu njëriñ lay doon sëñ Mortalla Fall mi doon wax waxoon na ko ba noppi yëgle woon na ko ñépp dégg nañu yëgle ba mu leer lool te rafet lool waaye lii dama dem ba seeti wëri tool ba ñëw rek di ko ci dolli ak li sëñ bi sëñ boo lim ci lim ci wax ma di ko ma di ko waxaat di ko leeral lool rek tax ma sànni ci kàddu waaye ni ko sëñ Mortala Fall ak sëñ waxee moo ko sëñ Fallu Jatara nañ ko tëralee ci wax am na solo am na solo loolu leer na nañ itam nañ ko dégg noonu li mu ci dolli loolu rek a tax waaye ñoom liñ ci waxoon doy na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa kon mbokk yi kaddu yaa ngi noonu dégg ngeen ni ko sëriñ bi wootee waaye dégg nañu kaddu yi nga xamante ne moom la sëriñ Abo moom Cheikh Mouhamad al Fadal yëkkati te ku ne xam na ne mooy jëmmi sëriñ lu Mbacké tey ci kaw suuf te ku ne xam ne diggante sëriñ Falilou Mbacké ak mébitam digganteem ak boromam ak digganteem ak jaamu yàlla yi ñu fàttali leen ni bi day sàkku ci taalibe yëpp bu gaawoo ñu xëy fa nañ fexe ba di fekk fa ñëpp ab départ nag dina am ci buntu kër Serigne Abdou Karim fii ci Ndindi ngir taalibe yi nga xam ne ñoo dëkkee Touba ak li ko wër Serigne bi itam yàgg naa woote ab liggéey nañu ko daan wuysee mooy yóbbu ay jumtukaay kon lu jëm ci jumtukaayu ruuj kenn ku nekk xam na ko ndeka jëkkatem nañu fa daan nekkee muy toog ba liggéey ba jeex sëñ bi ñaanal ñu loola rek la sëriñ bi yeesalaat kon mbokk yi ma ngi noonu kuy soppe di di am di jàmm rawatina ñi nga xamante nag mooy seen jëwriñ ci toolub Serigne Touba bi ñoom ñëpp Serigne bi ma ngi leen di séntu te leen ci ñaanal jàmm ak xéwal ci barkeb Serigne lu Mbacké